Euh, commission culturel bi ci taxawaay yu am solo ak xalaat yi nga xam ne waxtu wu nekk ñu ngi koy ñoral di ko ballaloo ci Cheikh Abdoul Ahad te jamono soxla ko lool waaye di ci sant nag ñaari ñi nga xam ne ñooma jiitu ci toogu bii muy sëriñ Ahmadou Mbakke ak sëriñ Fallou Silla Dramane ci kàddu yu am solo yi nga xam ne indi nañ ko nga xam ne li yëkk-yëkk andi mooy dañ koo nose woon ba noppi waaye jataay bi moom mënoon nañoo ñaan liñ fi dégg mat na sëkk jazakum allahu xayran euh, waaye mu mel ne ni ko commission bi tànne woon te def ko tànn gu tegu ci xam-xam euh, waxtu wu nekk ñuy xool li jamono gën a soxla ñu di ko tànne ci waxtaani sëriñ Abdul Ahad ak yi jëfam di ko delloo siwaat tey mu mel ne xulux muy jikko moom la tànn sëriñ Abdul Ahad bu sa ceer na wax na ko sànq muy ci thème centrale bi ak tey jii li ñu indi euh, bu ko defee mbokk yi jiitu li ñu indi gis ngeen ni mu amee solo te lépp di dellu ci jikko qiyam wal axlaaq ba tax kon ñu tànnal ñu asiyaasiya wal qiyam al xuluqiya taamulaat fi mawqifi Cheikh Abdul Ahad muy politique ak ay valeur ay jikko te loolu di lu mat waxtaane lool ci senegal ngir li ëpp ci ñi fiy dox suñu nee politique dañuy defe ne dañoo war a dellu rek ci définition wu mag Machiavel nga xam ne su boobaa amul jikko moom li mu jàpp mooy li ngay lijjanti ba réussir rek àgg fa nga jëm moo am solo am maa fi nga koy jaare ba ba nga koy àgg loolu moom jërul sax xool defal rek ba jàll ci tënk boo doon wax moom ni muy gise politique mooy soo digge woon digge bu réeréeréeréy te defoo ko bu ñu waxee nga ne ah xanaa du gars yi ñu ngi ko doon jàpp loolu problème bu ñu ko doon jàpp waaye yow bi nga ko waxee ba am li nga bëgg yow ñeelatu la sax far loolu ku ne xam ne ne ak njulit du demee noonu te Cheikh Abdoul Ahad liggéey na ci lu réeréy kon lu mel noonu ñu xam ne euh, diine jii du diine ju gàttañ lu ci dara diine yi lislaam du diine ju gàttañ lu ci dara ju joxañ la ci lépp lu nit nekk rëddal na ko ca ay yoon gis nga soo delloo ci diine di ko jàngat eh, lépp loo xam ne lu ñu war a jànkoonteel ci politique la rekk diine rëdd na ca jikko yi wane ci ay jikko ak i melokaan yenent yàlla daawuda mi nga xam ne alayhi salaam boole woon na ak yonent ak nguur suñu boroom ne ko kon dama laa def xalifa ci suuf si ngir nga atte nit ñi ci dëgg te bañ a topp bànneex yaa daawud inaa jaal naaka xalifatan fil ard waaye li yaxkum bayna naasi bil xaq kon gis nga moom dafa boole ak yonent ak nguur yàlla def ko xalifa nga xam ne ba xalifa boobu sax da ciy dellu si xalifa ci boppam question politique la xalifa parce que dafa war a boo nee imam boo yaatalee noo ko tuddee waaye dafa war a jiite di doxal dafa war a jiite di doxal te jiite di doxal ci foo mën di dem ci àddina bi jiite tey doxale na nga war a doxale foo mën a dem ci àddina bi loolu lañuy tudde politique loolu moom lañuy ñuy tudde politique da euh, kon bu dee ci lislaam nag dafa mel ne def koy ci tënk bu gàtt rek définition politique yi dina bari waaye attadaabir allati yakunu nnaasu minha aqrabu ila salaah wa abadu an ilfasad yépp doxalin woo xam ne nit ñi dinañ ci gën a jegee defaru di ca gën a sori ak yàqu ci gisiinu lislaam boo ko gàttalee man caa dellusi loolu même du soree ak suñu politiciens yii boo leen ko définir loo li ñuy wax l'art de la cité du sorek loolu daanaka moo xam danañ ko def wala duñu ko def bu ko defee kon euh, loolu wane ne euh, ñu toog di waxtaan ci kilifa diine gis yinam ci politique ak doxal yinam ci politique du gan ci lislaam bari na nag ñoo xam ne suñu ko déggee feek dégguñu lañuy wax dañuy defe ne gaaf lay doon yàlla nañ ci yàlla bësal wax laa kulli xaal nañu xam ne diina ji ci boppam moo yàgg organiser doxiinu politique tudd naa ci sànq xalifa te loolu suñu boroom wax ko ci bi muy wàccee doomu adama ci kaw suuf ngir li mu ko fiy defal si gën koo firndeel ci yonent yàlla daawuda mi mu booleel ak nguur akuk yonent boroom xam-xami diine yi bind ci bu baax a baax kan mooy xalifa ay wasaay fonction yi melokaan yi mu war a mel ak yi muy làmboo ak jëmmi diine ji ci boppam melokaan yi mu bëgg nit mel ko euh, ci étape bu mu toll bu nekk étape bu mu toll bu nekk nag politique nga ca biir euh, sëriñ Ahmadou tudd na ko sànq muxaddima bi dafa bari luñ ci niroo ci wàllu xiyam xam nga ni diisoo diisoo ci li ëpp solo ci melokaan yi ku jiite la bokk waaye maandu yërmande eh, yamale ak mbooleem xeet yu mel noonu nga xam ne moom boo ko déggee kenn du nattable ndax ay jikkoy lislaam lam déet waaye kon noonu mu nekk ay jikkoy lislaam noonu la sax nekkee jikko yi nite rek ci boppam dafa am loo xam ne lekk-lekk dafay nekk eh, lu diine ndax diine moom dafa ñëw ngir toppatoo nit ñi seenu dundiin bu ko defee kon ñun am na lu ñu indil problème ci te loolu ci liggéeyu tubaab bi la bokk muy fexe gi mu fexe ba ñuy taqale naan diine ji ak àddina bi loolu problème bu rëy la ndax fi toll maa ngi bëgg a indi ay ay ay melokaan yoo xam ne dama naan c'est humain insaniye ba noppi naan lii diine la te diine insaan lay liggéeyal kon problème yu mel noonu ñuy am ci tur yi ñoom ñu ko indil waaye fi'lan du lu am luñ la ne diine ji wax na ko soo ko xoolee nit moo ko tax a jóg dafay baax ci moom bu ko defee nag kon la ngay ber naan sa imee mooy ki nga xam ne gëmul diine ji te mënta ñàkk jëfandikoo valeur yooyu moo indi ñaari yooyu ñu koy tudd sinon benn la kon euh, kilifa diine googu nag nga xam ni lekk-lekk mooy seere politique bi yore ko <clears throat> ni mu amee woon ci yeneen sallallahu alayhi wa gannaawam alxulafaa u rasiduuna muy taxaaba yi ba ci yeneeni jëmm ci gannaawam amoon ci ay yonent ak jëkkam kon su lu jamono dox dox dox ak ci barab yi ba am barab bu kilifa diine nekk te yorul mbirum àddina ji du tax mukk loxoom war caa génn loxob diine war ta génn mukk ci aw doxaliin loolu nag Cheikh Abdoul Ahad xamoon ko bu baax dundoon ko dundaloon ko xamoon mooy kan ak ban taxawaay la am moo fi nekkal Serigne Touba mooy jëwriñi murit yi murit yi di dund ci biir am réew moo xam ne ay leader politique moo koy doxal mu xam ne moo nekk ci diggante bi te mat ko sëkk te mat ko sëkk bokk na ci la ko yàlla dimbalee mooy mu doon ku ñagu koo xam ne jëkk mu koy nekk ak bi mu ko nekkee wenn dundin la masa am mooy tànkam ci siraatal mustaqim li gaañi di wax euh, gannaaw moom mosu koo am nga xam ne su ñëwee ci gaa ñi du ñemee wax mu war a wax mbaa mu bëgg a wax ndax di bañ ku ko waxal nangam te gannaaw loolu yàlla mësaloon ko ci mësu koo am loolu tax mu nekkoon ab diggale boo xam ne daf ko teeloon a waajal ci boppam ci fànn yépp euh, di féete nit ñi fi mu leen war a féete fi mu leen war a féete mooy jiite leen ci dëgg teg leen ci aw yoon ba noppi maanaam nekk lu fi woon murit yi rek di leen xëccal lu jub ak lu jubut waaye da leen a jëkk yar jiitu leen ci dëgg wommat leen ca ba nga xam ne lu waaye bëgg te teguwul ci yoon sax doo ñemee Sëñ Abdou Lahad yëg ko loolu ci waxin boppam la koy defal murit la koy defal waaye kon ci waxin mën nga ne liggéeyal na ci état lu rëy rëy parce que yu bari yoo xam ne mënoon na àgg ci ñoom di problème moom daf ko daan régler balaa muy àgg waaye su amee loo xam ne ci ñoom la war a jëmit mu àggale ko ci ñoom ak fulla jamu ko ca wara a musta nangu it ñu ñooxu ko ba dox digganteem ak murit yii mu war a défendre ba la mu leen war a défendral dootu ko man te loolu bokk na ca la cay firnde am na jamono boo xam ne gouvernement wu senegal jëloon na décision ci jëlal ñaari xalifa général de ñaari xalif général ak benn kilifa kër labbe wutal leen ay SO ca ba plaque oto yi yi gouvernement moom di nekk SO mu wutal leen i oto ak i chauffeur ba ñu ko ko yëgalee mbaa ñu yónnee ko ko dafa laaj ndax dañ koo defal ñépp mu ne déedéet mu ne kon moom nañ ko bàyyi ginnaaw munta daj ñim war a daj ñëpp bunt yooyu bunt bu nekk wala bunt yu baree baree baree bari ñu jaar ko ca waaye mu rëcc yëpp fas yéenee doon ki mu war a doon te doon ko muy koo xam ne ab digale lay doon suñ su su su maam mu bëggee am ci fii mu tënk waaye su ñee bëggee gàttañ lu mu soññi leen yaakaar naa ne ku déglu bi muy waxtaane marché bi di ko sàkku ci ñoom fulla ju mat jam ko waxe ak xam boppam nga ak dignité ja ne leen lii damaa xam ne lu jaadu ci nit ñi la lu yell ci ñoom ma war leen koo laajal te yéen ngeen di laajukaay yi ne ci bunt bi mat leen ko ci mat leen ko laaj loolu rek la waaye teg ca fulla jumat mat sëkk su marché bi natt woon tey mu ne du may waaxu di dem ca biir lekk ko taxut naan ko taxut du ma ca duggit <coughs> waaye nit ñi seen aqalata ñoo ko moom ba noppi bu doon wax yi lu tayee mu sërxal leen ne leen nag lépp loo xam ne muy marché bi muy leneen lu dul moom loo xam ne lu yell ci nit ñi jaadu ci la su ma leen ko laajalee laaj ko ci yéen ba ngeen nangul ma ko ba ñëpp dégg ne nangul ngeen ma ko ma daal di cay génn kenn dootuma ca dégg su boobaa léegi c'est à vous de léegi nit ñi nit ñi ñooy siser li nga xam ne ñoom pouvoir centrale bi waxoon nañ ko tam jëm si ci nit ñu war koo def te ki war a laaj laaj ko te defuñu ko dootuñ ci ñeme ñu xam ne ku ku ku xam boppam état Sénégal xamoon ne ku xam boppam lay jëflanteel ku xam valeur am xam li muy peese euh, loolu tax na bu ngeen ko fàttali ko amoon na kenn ci ñoom koo xam ne équipé na ci fonction yu bari yor plan yor coopération yor information ba yor intérieur nee na décision yu bari bu ko gouvernement Sénégal daan bëgg a jël daanañ xalaat di wax ne nu ko sëñ Abdou Lahad di gise loolu ku fi dellu ci témoignage yi sëñ Abdou Lahad ku mag ci ñoom wax na ko ne gouvernement bi su daan bëgg a jël décision daana xalaat ci décision bii nu ko sëñ Abdou Lahad di gise mu xamaloon leen it ne lépp lu muy sàkku ci ñoom njariñal nit ñi la aw doxin ci boppam it ci boppam leer nañ ñi ba nga xam ne kuy ñëw ci moom faw nga indi fa lu leer kuy ñëw ci moom fa mbaa boo fa indiwut lu leer it da nga ci moom moom lu leer loolu dafa ko dafa dafa ko mayoon équilibre boo xam ne junj naa ko sànq du jublu ci dara di cee nak-nakal wala muy cosité naan su ma ko defee lu cay mujj daf ne woon ko xalaat li nekk ci gannaaw wax doo wax moo tax su bëggee wax moom day wax la muy wax rek ndax day xam ne li muy wax moo ko war a wax te amul dara ci gannaawam luy tax dégg nga dégg nañ ay yoon mu wax ne man su ma amee dara lu muy bëgg loo xam ne njariñ li àddina dong la yem na mu koy waxee du ma gor du ma jullit moo dis gor moo di jullit musta wax dara te àddina kese tax musta wax dara te boppam tax lu mu wax njariñal taalibe yee ci nekk njariñal juliit yee ci ne njariñal réew mee ci ne ñi ko yëg ak ñi ko yëgut loolu bindkat ba bu walax ba wax ci moom ne Cheikh Abdou Lahad comme jamonool jariñ na la soo ko yëgeeg soo kum jamonool xaw ma jëfal na la soo ko yëgee soo ko yëgul jariñ na la aw na mu ko waxee ci xibaara boobu ñaari jariñ na nag jëfal na la loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg ndax dama ciy joxe ci loolu benn misaal rek loo xam ne bari na ku dund ci njariñ li ci réew mi te yëgoo ne sëñ Abdou moo la ko defal mas naa am at moo xam ne eh, mbay mi dafa àgg gouvernement bi taxawal li ñu naan bascule taxaw na mooy tàmbalee jënd gerte gi traite bi taxaw ñu dox ab diir coopérative yi mënuñoo am gerte liñ war a am defe naa boobu jamonoy sànkole la ñu yebal ay ndaw maanaam gaa ñi biñ bi ñu waxtaanee ñu xam ne li tax gerte gi mënta am mooy Touba parce que gouvernement bi pris bi mu tëral li Touba yi jënd moo ko ëpp bi ndaw yooyu ñëwee ci sëriñ Abdou Lahad wax ko ko mu ne leen baax na kon da ngeen di dellu si bis sàngam bañ dikkee dañ koo wax ne ko euh, moom kat coopérative bañ taxawee ba léegi mu ngi bëgg a yàgg te ba nëga ni mënaguñoo am dara te bi ñu ko gëstoo dëkk bi moo tax mënuñoo am gerte sëñ bi leen baax na dégg naa ko dangeen di dellu si jox leen rendez-vous ba ñu demee mu yónnee gaar bu ndaw woolu fa ñaari nit maa ngi fàttaliku ne kenn ka ba tey Cheikh njaay la tudd ci jaaykati gerte yi bañ dikkee mu laaj leen mu ngeen defa gerte gi mi ngi am ñu ne ko waaw moom day tuwarkal la mel na ne réew mi sax lu baree bari ñu ngi ko fii indi mu ne lu ngeen di jënde ñu wax ko ko mu ëpp la gouvernement bay jënd ñu jënd fukk ak benn ci teew gouvernement bi di jënd fukk tey not euh, ba wax ba waxtu ba jotee ndawi gouvernement bi dellu si sëriñ bi toog loo leen ni yónnee wooluwaat Cheikh Ndiaye ma mu woolu woon ak kam àndaloon bañ dikkaatee mu laajaat leen lu ngeen wax ñu ne ko gouvernement bi dafa gis ne ba ñu tàmbalee bañ taxawalee coopérative beeg léegi ab diir la te mu mënuñoo am gerte te dëkk bee leen ko xañ sëñ Abdou Lahad ne seex yéen lu ngeen di jënd mu ne ko ñun day fukk ak benn la jënd waaw defe naa dafa jëkk laaj ndawal naa bi ne ko yéen lu ngeen di jënd mu ne ko fukk mu ne da ngeen di fayam da ngeen di not ñu ne ko dañuy not mu ne seex yéen nag lu ngeen di jënd ñu ne fukk ak benn da ngeen di fayam da ngeen di not mu ne dañuy fay mu ne ko lool yi moo leen xañ gerte waaye kenn dëkk bi xañu leen gerte ba ñu delloo dañoo waxtaan yokku njëgu gerte gi fukk ak benn ne ñi nga xam ne jotoon nañoo peese bañ fay leen daañ leen ko defal restourné buñ demee ba ci nangami weer ci kanam daañ leen ko jox ñi bayeen gerte ñëpp seen gerte yokku taxamuñu ne sa ñëpp laata loolu lu dul jeex la ko def lu dul jeex la ko def loolu mu leen di sant ñuy rafetal moom ci boppam léppam di rafetal ci doxaliinam ak digganteem ak ñi mu yilif ñi mu dëkkandool gis nga ni mu defoon ak naaru mbàkki bii ci jëfiin li ñuy tudde diplomatie jëfiin wu ko gën a xereñ amut ci bi mu teree yi suñu borom di bañ ci dëkk bi te moom mu ne du ko bàyyi muy sàngaraa ki mbokkam eh, ku ne xam na ne benn naar boo xam ne sax amu fi maam boo toppee maamam mu dellu Beyrouth wala Liban rek suy xëccoog xalif général de Mouride xam jikkoo ma tax mënoon na ko lijjanti bu seetaanoon sax ñu lijjanti ko te kenn du ko ca tudd waaye mu xam ki mu doon xam li mu jabooteeg ni mu yaatoo ak it xikma ni mu amee solo mu ne bu ko kenn dóor bu kenn xas bu kenn def dara waaye digal nag mbooleem ñi ko yaakaar rawat na taalibe yi nekk mbàkke nañ maandu ci moom la muy jaay bu ca kenn jënd mbokkum taalib mu fa jaar nañ ko xamal ne kee la ñuy bañ ko jënd ci moom fekk na naar ba yamutoon ci sàngara kese waaye liggéeyam daa mel ne mburoo ci ëppoon doole ñu baree bari ñoo xam ne ba ñuy dox yor seeni oto di livrer mburu ba wax ja dab leen lañ libéré gutoon dañ koo tegaat ba mu jekk ñu dawal ba agsi gaareel ko oto ba ne ko mburu maa nga ca lañ jot a jaay ñu tegal ko fa moog caabi ya oto yi di ñëw di gaare rek am soxna yoo xam ne ca bañ ko déggee ca fajar te taxawoon seeni casque bu leen jubee tañ xool muy oto ba dañ naan uhuh, bu mu fi ñëw kooku la sëñ Abdou Lahad di wax comptoir yi ne sën na ki mburu bitig yépp taxaw jaaykat yi man di attaayaa ka dàqe lu leen neex def ah mu dellu ca gannaaw mu dellu ca gannaaw ñëw tuub génn ca xoolal ma woowu saafara wiin nga xam ne woowu saafara wiin nga xam ne saafara na ko euh, kenn du ko ci sikk kenn du ko ci yedd te lam bëggoon lépp am na ko li ko mayoon lii nag waxtu waa ngi jeex euh, lu bari la waaye danaa ca nettali loo xam ne ku ko dégg da nga xam ne bokk na ci li ko mayoon lii mooy ñag boppam googu ma waxoon ñag boppam gi mooy eh, dafa mas a toog ay ndaw bàyyi koo ca Senghor ñëw nuyoo jox ko ab xaalis mu téye dalal leen ñu berndeel leen ba seen dem jot mu tàggoog ñoom yëkkatiwaat xaalis ba jox leen ne leen su ngeen demee ngeen joxal ma ko ne ko jërëjëf ñu am teg jaaxle waaye teewul ñu yóbbuwaat ko bañ demee joxaat ko Senghor ne ko moom kat sax dafa nu ñu ku mer ndax berdeel nañu teraanga teraanga ju ne téye ko waaye bii ñëw daf ñu koo joxaat ñu jàngat ci daal jox nañ diw jox diw jox diw jox diw ñoo ñëpp jël nañ ko moom moo jëlut du jar diw na moom diw rek la waaye moom daal jëlut waaye ñoom biñ ko jàngatee lañ lañ jëkk am comme résultat mooy liñ ko jox da ko xeeb ñu ne ah pourtant moo ëpp liñ jox sañ jiw de ñu ne ah bokkuñu murid yi dañoo jekk liñ ko jox da koo xeeb ñu bàyyi toog ab diir jàppal ko yit da dolliwaat ko it ba nga xam ne nag xel xalaatutut di ko xeeb ñu waajalaat ay ndaw fàtte na maa nett li buñ dikkee lay wi lay wiñ koy jox ni mu jube buñ dikkee dañ koy wax ne kilifa ga moo ñu yónni nee na lii alali réew mi te xam na yéen kilifa yi diine yi taxawaay bi ngeen am ci réew mi ay régulateurs sociaux ngeen mooy nekk bi ngeen nekk ci kanamu nit li ngeen di jànkoonteel moo leen may jàmm ca ñoom feeñu ne waaye su ngeen fi nekkutoon bés bu nekk lu dul jeex dana leen fekk fañ nekk liggéey boobu ngeen di liggéey nag te réew mi amalu leen solde yorul leen dara waaye jaadu na nag léeg-léeg su ko ma mënee mu jàpp la leen ah man borom si kim bii de ku ma ko waxoon damay defe ne jub na hmm? dama koy denc daal te te te nan ne ko waaw góor waaye bañ dikkaatee ci yoonu ñaareel waxaat lool it mu defaat mu defoon ganal leen ba ñuy dem mu jox leen ko ne ko ne leen ko jër jëf buñ gisee danañ waxtaan booba bàyyeegul at mu nekk muy dem Dakar noonu mu daan def su demee gisee ak Senghor ba mu demee ñuy gisee xam naa Senghor moom li ñuy wax Euh, question qui brille les lèvres li sëñ bi wax lépp kiiwu ko sëñ Abdou Lahat moo jublu ñàkk ko caa wax dara ba ñuy tàggoo Senghor ne ko xaalis ba nag mu ne ko waaw kay wax nga dëgg ne ko damaa bëgg nga xam ne yow sequñu xaalis xam nga luñ seq tin ma ci nga tin ma ci tin ma ci nga tin ma ci ñu ci ab diir Tamsir Mbuub mi daan importé fëgg jaay bi bi ñuy taxawalee société textile yi fi nekkoon assemblée bi indi ab loi pour importation wu fëgg jaay bi ñu mën man koo wàññi buñ ko arrêté wutil ngir euh, coton bi ñuy bay textile bi mën a dox te moom mu investir ci xaalis bare bari mu sonn ca lool dem ci ay sëriñam boobay du murit fu ne mu wër ko lu ne mu sonn ko ca ñu ne ko daal lii moom jàpp nañu suñu laxat rekk ci man dara ba mu ñëwee ci sëriñ Abdou Lahad wax ko ko li mu li mu ko indil ci jafe-jafe ndax engagement yu rëy yi mu ci def ak investissement bi ni mu rëyee eh, sëriñ Abdou Lahad jël téléphone wooteelu fekk Senghor dafa génn Abdou Diouf fi nekk comme premier ministre bañ ko joxee mu ne ko Senghor laa soxla fulla ji jëkk jooju ñu jokkale ba jokkale kook moom mu xamal ko ne Tamsir Mbub dafa ñëw fii di wax ci isinam biñ tëj te ma bëgg ngeen tijji ko mu ne ko danañ ko tijji buñ noppee danaa jokkoo ñu tijji ko te tukki ba la Senghor jokkoo ak Abdou Diouf ñu tijjiwaat usine ba ba mu ñibbisee mu wax président assemblée bi bi fi nekkoon ca waxtu woowa mu woote euh, euh, assemblée extraordinaire mooy ndaje moo xam ne waajaluñ ko woon ba député yi ñëwee président assemblée moom moo leen woo rek faw ñu ñëw Senghor ñëw ak ca dépité ya ne leen xam naa woote bi dana leen jaaxal waaye ma maa leen woolu ne leen réew mi dañ koo séq ak ñoo xam ne suñu ci ëppalewuñ ëppalewuñ leen ca te am ca ñoo xam ne dañoo wax ne soxlawuñ ca lu dul lenn nit nag su ngeen bokkee mbir mbir ma di mu bari mu yaat te soxlawu ca lu dul lenn lenn loola bu ko soxlaa da koy defal ne leen li ma bëgg a wax lu mu doon wax leen fi mu jaar ak sëñ Abdou Lahad ci fonds yooyu ngeen gis ak kilifa yi mu ciy yónnee ku ne mu ne yónnee nañ ko jël na waaye moom bañ ko joxee jëlut bañ gisee nee na ma lim séq ak man mooy tin ma ci nga tin ma ci te moo ne ma tin ma ci Tamsir Mbuub mii moo tax donte luwaale ngeen wate ko ñii dangeen di xam ne ñoo ñoo bokk réew mi kon gis nga moom ni mu mate woon li mu doon lool defe naa ku ko wax noonu ni mu mate woon li mu doon kon daana réguler di dalal politiciens yi mu jamonoon ba nga xam ne yu baree bari danañ ko ca bàyyi xel buñ sorxaloo ba duggit fu leen déetam fekk ñu dëpp fu leen déetam fekk ñu dëpp ndax xamoon nañ ne lim bëgg lu mu war a bëgg la te moom mi ko bëgg xam na ko te it xam na poids am xam ne li muy peese xam na li muy peese mooy suñu xëccoog moom loolu daloon naa Abdou Diouf Serigne bi mu tabaxee ecole yi tubaab yi ci dëkk bi jamono bi ñu koy tabax yëgaluñ ko woon sëñ Salih dañoo lijjanti rek ci ci quartier yi ba am ko te loolu problème bu amoon ci daara moom ko xamal sëñ Salih yoo ko nettali waaye mu ne biñ koy bëgg a ubbi nag juuf dafa ñëw ci moom booba Dioufay président ñëw ci moom ne ko jàngu yooyu ñu doon defar ci dëkk bi dañ koy bëgg a ubbi sëriñ saalix nee na ma ni ko ah, ubbi gi day dana diis na mu ne ma ñàkk gee ubbi dana diis ndax kon eh, banque mondiale ak àddina bi maanaam bitim réew sax la ko wax bitim réew ak banque mondiale danañ ko naqar lool nee na ma ne ko ah, boo ko ubbee day dana diis biir réew dana ko naqarlu ndax danaa ko naqarlu ba ñëpp xam ne naqarlu naa ko te kon biir réew dana ko naqarlu mu xam ne diis na mu teg ko ci suuf loolu mooy poids xalif général de Mouride loolu nag sëñ Abdou Lahad da ciy am taxawaay yu mat sëkk yoo xam ne it nag li koy maye lu leer nañ ñi la mooy ñàkk sa bopp kenn du la xamal démb dara doo xemeem liñ lay xoymet lu bik nga mën koo muñ doon ki nga war a doon soo waree wax wax yàlla na yàlla fayal ñu ko te yàlla jubal ñu gannaawam lam bëggoon lam bëggoon mooy ñëpp jub ñëpp tegu ci yoon loolee mu waxaloon sëñ tubaa ca ca sëñ tubaa bu ëllëgee bu ñuy woo yenentee ñu bokk ci ña ko fa mënal dara yàlla nañu yàlla boole ci ñooñee def ñu ay murid saadix ñu dund ci dee ci dekk ci waxtu wi xat nañu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ay murid lañu yoo xam ne sëñ tubaa rek lañu yaakaar tey moom lañu yaakaar ëllëg wóolu ak gëm ak ragal ak yaakaar sëñ tubaa rek lañu ko def